demaguma setti c'est président wat mais amna yene dem toog waxtan ak suma kilifa ci walu politique mi président wat mais jamono damay bagn confusion ndax amna na leader politique yumi wo di diso ak ñom di waxtan ak ñom man bokuma ca ñoña kon suma ma dama koy gis day melni ca dama bëgg bok ca man nak maandu naa maandu gu nga xam ne lu ñu ma boolewul lu nekk mën naa caa mën naa kaa muñ waaye bu li passé ba ñu romb waxu élection législative ba yëf yi calme xaw ma Sénégal lay doon xaw ma Versailles lay doon xaw ma fu muy doon dinaa ñaan pour ñëw toog ak président Ablaye Wade waxtaan ak moom en tant que doom ak papam